Omaro dama ko dégg mu ne lu Wally wax mu ne waaw bu weexee mu ne taal noonu laa mel ci biir bi dama ko gis ci période boo xamante ni maa ngi doon gis samay nit mais ma jaral ko ay sacrifice yoo xamante ni d'habitude yaay rek moo koy defal doom Viviane mënuma jur 41 na laa am mais bët yi muy xoolee Philippe di ko xoolee Zeyna noonu la may xoolee tey dama dem ba chaque jour je dis aux gens lu waay defal Viviane bor bu ñu koy jéem a fay la ñun amuñu sa fay man personnellement aw ma sa fay su ma bëggee Zeyna bëgg leer na ma ni Zeyna day ñàkk su ma bëggee Philippe bëgg leer na ma ni Philippe day ñàkk ñoom tamit ñu xam ko Zeyna mii man maay magam. Zeyna man maay kilifaam Adama Bey borom këram sama xarit la damay faral di nettali ni ñun ñett la woon man Zalman Adama Bey dañ daan propagande Wally Seck fi ñu toll. donc les deux premières lunettes benn bi c'est pour ma mère benn bi c'est pour mon père et moi personnellement man maa ko jënd beneen bi ci topp nag muy cette paire de lunettes sànq maa ngi leen nettali tuuti histoire ci période bu difficile. La xalaat li ci période bu difficile la ko initier ci période bu difficile la ma yàlla booleeg ay nit yo xamanteni tay grande marque yi nekk bitim rew fa ñuy toggee foofu la toggee sama ay article manam du ay fabrique gu nak fabrique Turquie pour ne pas faire de mauvaise pub mais genre c'est de la qualité et cette paire parmi les cinq bi ma jélé jox sama pap jox sama yaay cette paire je l'achète notez ça c'est pour Viviane Chidid que Viviane man man damay toog ci télé bi sax naan ku bëggul Viviane bul ma seetaan mos ngeen gis animateur bu am fit def loolu toog ci télé topp artistes yëpp ay décembre jëlee seetaan nga naan nit ñi ku bëggul Viviane bul ma sax seetaan yow yaa ma ko ji su ma la mënoon tabaxal kër tabaxal la kër yéene ma yéene sama ay waajur maa ngi parce que xam naa ni li nga yéene say doom nga ma yéene toujours damay tooñ Adama Bey ak Zeyna naan la yéene sama sponsor officiel. Adama Bey bi daf ma fekk ma toog fii mu ne ma woy fan la projet yi toll fan la effervescence toll parce que sama agence effervescence la toll lu tudd plutôt ma ne ko maa ngi ci mais Nomade Blue laa bëgg njëkk a lancé Adama Bey ne ma lancé Nomade Blue effervescence maa lay jox local jox le bureau jox la ay plateau maa la koy fayal pendant des années Adama Bey ku la defal lu baax danga koy wax yàlla na la yàlla fay Viviane I love you so much. Le match go avec Merci. Mais elle est trop belle. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Mais l'eau est bien contactée. Mais non, elle me disait. Pape dafa am lu am solo lu ma laaj ne ma loo yëg bi ko takkee mais dama bërëngu dama daanu <laughs> mbaa dooma gaañ di ñu merci Viviane waaw ok euh, noté Viviane jënd na bleu bi bijou bien Bien est-ce que vous bi dire bi ban couleur la bi prix normal bleu pour 5 millions. ana bleu bi pour 5 millions. bleu pour 5 millions.